sax da ngeen ibbi sax xol yi baa sax ngeen euh, yokk nopp yi xam naa ni tey ku am noppi garmi euh, nga ciy bëggee xasida gu neex tey xam naa ni tey dina neex ba tubba rumba ba sax mu neex ba gonjox maa leen ko diggoon bàkk ba dooratina ñu santati laa buun mi tax ñu tal juleti ci ki gën ci jaam ñi ki gën ci mbindeef yi ki yàlla bëgg damay faral di wax naan ñun sax danoo bëgg yàlla waaye yàlla kenn la bëgg muy ki gën ci jaam ñi gën mindee bàyyi umu kalsum bàyyi fatumata bintu rasul bu ma ko waxee moom sax la sama bàyyi xol ba mu yàgg ni ko ku fees ki moom euh, mouhamadou rasul laay moom sax laa tuddee un bu déggul deux ndax nag foo dem ci àdduna boo nee moom un ret dootoo dégg deux bi moom ñool màkk ak médine damay faral di wax naan ñëpp ay naama lañu waaye benn ñool am kookoy mooy ñool màkk ak médine kooku sax moom la sëriñ bamba ba dem waaye ci noonu laay santatee bu baax a baax ki mujjee woote ëppi dongo sëtub jumaa gënub sóoróol ñeenti mag mag gi ci tukki bu mag gi ci dongo yu mag yi kookoy Modou Bakke Baari dégg naa sax biro ba ca moo fa daan doj wiir wiir moo fa daan Sëriñ Bamba damay faral di wax naan géej gis nañ ko juddoo ci biir géej màgg eh, ni géej gi randul mu randu ba jàmmalaay waaye daa mel ni jullee ci géej gi kenn rek la ko yàlla defal bàyyi Sëriñ Saaliw ak Cheikh Abdou Lahad nag mooy bàyyi Sëriñ Fallu aw bu sa jax réew ak càmmiñal kunta maamu Cheikh Abdou Karim Mbàkke a Tivaouane ki sañ ci Tivaouane xëcc burdu bi Bakar ak Daraman am loo Kumba Caam bëgguma Penda ak Paate Penda xaale la la gëm ajaratu Daba Jaañ sama waaye ci noonu laay jaajëfal baax xalifa ba fa ne ci tekki geeg teey beeg tabe geeg maandu gi kooku nag mooy sëriñ Babacar si Mansour si bal xaw mi di ko fi loolu tànn wér mbooleem xalifa généraux yi ci réew mi ñëw Thiès ñëw ci sagu Thiès sëriñ Saliou Touré Touré Balla di ñaan yàlla yàggal ko fi loolu tànd ak wér dem euh, seeti sëriñ Muniru Njëgéen Sapatek Demba Yoro ëmëreeg ñay ba des Saalum di ñaan yàlla yàggal ko fi loolu te mànd ak wér sëñ Xaayam Lo waaja ca Baxdaad moom it ñi ngi koy jaajëfal baax a baax ci teewlu geeg jàpp geeg ñaanal gi mu ñuy ñaanal moom it ñu ngi koy bàyyi xel baax a baax sëriñu Maamuloo Gaydel at Bira waaye ci noonu rek laay euh, jaajëfale bu baax a baax euh, sama sërif bi ki nga xam ni yonent bay maamam kooku nag mooy maam ma Saat bu Cheikh moom it mi ngi teewlu bi lay jotaay xam naa ni sax ñi ñuy wéttali tey dina bëri ndax tey ki ma dalal xam naa ni tey euh, ku ko tele yëpp a wër réew mi yëpp a wër waaye daal Zik FM daal am nañ sens ñëw na ñëwati loolu nag ñun nag danañ koy namoo ndax nag moom damay faral di wax naan dégg ngeen lu ne ku ne di dàkkantal boppam sëñ Touba waaye daal xam naa ni kenn rek la ko yàlla nangul muy jàngkatu borom jumaa ji ñëpp ko nangul kii Serigne Mountakha nangu ni mooy jàngkatu borom jumaa ji euh, euh, Serigne Cheikh Jëmm nangu ko mbooleem kuy Baye Fall baa ngay murit sax nangul nga ko titre biñ ko gàll kooku mooy Serigne Fallou Tine jàngkatu borom jumaa ji ki nga xam ne internet bi min nañuy euh, mbiram YouTube bi min nañuy mbiram réew mi sax ba bitim réew min nañu ay mbiram moom jàngkatu boroom jumaa ji damay faral di wax naan moom sax réew mi ko bëgg bëggal seen bopp murit yi sax ñoo ko bëggal seen bopp moom Cheikh Fallou Euh, du ma fàtte mukk ñi tëdd ci hôpitaux yi damay faral di wax naan bëñ buy métti ku mu dal sax di nga ni yàlla lu ma la def ba nga teg ma bile tawat am na koo xam ni yàgg na hôpital ba ñu jog ko digg kaas même naan ko tëkko kon kooku nañ ko ñaanal euh, damay faral di wax naan une minute de silence ñëpp noppi yàlla rek ko mën ku wet di demal sëg ya di nga gis ku ne tëdd nga woo ko du du mën a bouger kon yàlla rek ko mën yàlla na yàlla euh, euh, oyofal suuf seen kaw ba fuñ tëdd gën a leen fuñ jugee fii sax laay tëjee ah waaw ñi nga xam ne maay seen ambassadeur ñoom sax ñoom ñooy euh, ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen féete kanam yàlla mën na ko la yàlla yéen xarit ba ci màkkaama te mënu koo jëf nattu lañ koy xayma te bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga mën yeno bi aw ci tànk mbër ya te kat yàlla xarit ba lay musi baal ngir dara jaal ko baatamuy ku ñuy baal loolu nag Cheikh Moussa Ka ko wax waaye ci noonu tey sax xam naa nit animation bi incha allah euh, tey dama koy leb ba ci kanam ndax dafa am nag dañoo am gan te nag defe naa le du euh, le douze bii ñu jëm muy mardi euh, le le douze journée xasida yi le douze la ndigal li nga xam ni waa le onze incha allah Serigne Mountakha joxe ndigal ngir sax ñu ja yëkkati xasida yi Serigne ba yi ma gis ci télé yi. defe naa seen TV teg na ko ak yeneen i télé ak internet bi sëñ Basiirou ni keroog bi ñu koy jox ndigal dañu ko. am na ci yàqin ni bu ñu ko defee ndigal li mu wax bu ñu ko jëfee réew mi dina am jàmm kon nag damay faral di wax naan euh, corona nag du ñu tee liggéeyal Ahmaduna dégg ngeen ma wala déggoo leen ma ma ni corona mii du nu tee liggéeyal Ahmaduna moom nag sëriñ Serigne Mountakha defe naa ak bile corona ñoom rek ñoo ci mën dara loolu waral bu joxee ndigal li xam nga màggal goo xam ni zéro cas sëñ Bamba rek ko ko moom waa màggal nañu woon muy zéro loolu <laughs> moo jaaxal tubaab yi moo ni woon bi le màggal jaaxal na ma ndax ñi fa daje ci mbooloo ñu dellu seen i kër gisuñu benn kaa sëñ bamba rek a ko mën moo tax moo mën ci corona moom sëñ bamba moo mën ci situation moom sëñ bamba moom sax sëñ Moussa Ka waxoon na ko nga nee ngëneeli daam yi gën a tuut xel mënu koo takk di root baa xalimaa ki daayu xóot neewoon na sax mbërub sëriñ bamba mënee su koo daan ndax ma ngay takkee ndoom ma fa pay diiwaan te sëriñ taxaa sax loolu waral dañuy anticiper bis boobu journée xasida yi dañ koy anticiper Euh, indi ko fii ci sama Zik FM 92 point 3 fii ci Thiès euh, nga xam ni mooy moo yor baatu xolu nit ñi incha allah ñu dundal leen ci xasida ñu ibbee ko bis bi dinañ ko teg tey tegaat ko le 11 incha allah le 11 nag mardi defanaa naa spécial xasida lay doon euh, lu defe naa bu 10 jotee la directeur wax. Euh, jàpp guddi gi yëpp xasida lay doon dinañ ci ànd ak ñun incha allah euh, jàngkatu xasida yëpp dinañ dinañ ci ñëw feggoo koog ñun waaye tey sëñ Fallou tin moo koy ibbi incha allah looloo waral sax damay kanaan bàyyi mu nuyoo ñi koy déglu ci réew bi at bitim réew euh, moom Cheikh Fallou Tine maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Cheikh Basirou maa ngi lay dolle nuyu di la siyaare di siyaare mboolem. Mhm. barab bi nga nekk yëpp di ñaan ca doole yi Serigne Touba ngeen yokk ba yëg ko barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf maa ngi lay siyaare di siyaare Serigne Mahmoudou Mountakha mu yàgg fi loolu ti wér mhm. ah, ak mboolem xalifa généraux bu nekk ci mhm. réew mi di mhm. ñaan bis bi mu woote yàlla nañ ca dem ak jàmm te làqe fa tawfiixi Serigne Touba amiin waay amiin mi ngi noonu kooku mooy Serigne Fallou Tine ah, jàngkatu borom jumaa ji tey